413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim li annahu qad saaqani li watani bihi nafa ma xaqani waltaqinaa sarra nasaara wal yahud wa sarra iblisa wa kullu zil juhud wal jinni wa dajaali wa sudaan fi sharqi wal maghribi wal bidaan wa sharra maa fil ardi turan wa sama min zahiri wa batini iktatama aya latif yaa karimu yaa jalil hamid jami hama bi lutfika jamil nafsi wa diini summa ahli wal walat wa maskani lakka wa diyantul abad lakka daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi bi ma sawtuuni jërëjëfe cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul maami cheikh mouhamadul muntaxal basir mi ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak wér waaye jaaraama cheikh ibrahima fall lamp babul muridin maami sëriñ cheikh jëmb fall mi ñu ñaanal mu yàgg fi te wér mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki sénégal waa biir réew mi ak bitim réew yéen ñiy di ànd ak fii ci télévision Sunugal 24 di xaar waxtu wu nekk Mamadou Khadim Ngom Matlabul nii ci jotaay boobu muy amal di ko jagleel mbooleem suñu téléspectateur tey ñoo dellu siwaat rek ngir indil leen lenn ci ay ponk yu ñuy bëgg na waxtaane waaye xam naa ne du ñàkk actualité du jour lay doon bu incha allahu taala ndax ku ne xam na li xew ci réew mi damay wax ni njëkk dañoo tëjoon jàkka yeeg jumaa yi tëj église yi ngir coronavirus di ragal mu rey nit ñi léegi nag yaakaar naa am na lu ñu wax ndax ku ne gis na jeunesse bii nga xam ne ñooy jeunesse su Sénégal ni nga xam ne noonu la ñuy dawal jëm ci gaal yi di mbëkk di jëm fii nga xam ne mooy réewum Espagne di jaay seen bakkan ngir lu ñu wuti te mu jëf joo xam ne kenn rafetlu na ko ci réew mi may wax ne nag ñi war a wax li ñu waxoon ne l'heure et grave ci coronavirus bi nañu génnaat ne l'heure est grave parce que am réew mënu dem sans jeune te boo seetee leen di génne ci réew bi mooy koo ci laaj la naan damaa bëgg a teral sama waajur loolu la ñuy wax. dama bëgg a teral sama waajur waaye bëgg a teraxal teral sa waajur ba mu toroxal sa waajur tamit kenn ku ci nekk war na ci bàyyi xel te ñu xam ne wut moo jafe mi waaye am day lu yomb la yàlla bu noppee waxtu wu ne fu mu mën a nekk ci àdduna doonte kon benn doomu gerte caaf ngay jaay sax incha allahu taala jàppale ca ngay tekkee kon nañu delloo siwaat suñu xel te xam ne li tax ñuy joxe suñu bakkan ci ndox mi muy xaalis loo ko barile barile barile barile ci neen rek lay mucc li tax ñuy dawal ndox mi di ci jaay suñu bakkan muy kër gu rafet loo ci barile barile barile fi ngay fanaan rek nga ci am waaye li tax ñuy jaay suñu bakkan ci ndox mi doonte koon jigéen la ak lu mën a xew rek jigéen dong lay mën a doon da ngaa juddu fekk ko maase moom faatu di ko fi bàyyi. kon warul tax ndaw di jël bakkanam di ko jaay te ñu xam ne nañu delloo siwaat sunuy xel te xam ne mbir mi du dara waaye àdduna képp la yàlla fa mu nekkoon mosu faa du fa jóg te waxtu wu nekk mu ngi saytu ab jaamam ci lépp yàllaa ngi gis témoigné na lépp lu am nit ku baax dafay doylu doylu mooy nga sabablu wékk say mbir ci yàlla te bañ cee yaakaar lenn lu dul ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim wala sa wasila wa nga xam ne moom moo la jokkaleek borom tubaa ñaan ci barkeem yàlla defal la la nga bëgg lu jot yomb soxna yi nga xam ne yéen jigéen ñi dawale borom kër xam naa nag bu ngeen yeboo génn def marche jigéen ñi bu ngeen yeboo def génn def marche ndax fi mu toll nii dañuy yaakaar ne dañuy dem ba xale bu góor day manqué ci dëkk bi bu dee ñëpp dañuy daw dem Espagne ñenn seen bakkan ci des. gisagu leen dara de nañu génn ñun ñëpp ñu wax dañu xam ne àdduna kenn mënu koo dawal ba jot ko la nga fekk say maam di ko dàq jàppuñu ko nga ñëw say waajur di ko dàq jàppuñu ko yow boo ñëwee danga koy dàq ba jàpp ko di ko forcer di ko fekki sa bakkan a fay xala des rek waaye na nga ko bëggee doo ko na amee kon nañu bàyyi xel loolu bu baax yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk wërsëg ngeen nekk ci kaw ngeen bàyyi xel ñi ne ci suuf waaye tabax sa kër ba mu ne ca kaw. macha allah nga jël sa njaboot fat tëj say appartement yenn yi nga luye ko luye ko loyaas bu seer gaare fukki oto ak ñaar taal sa benn oto taal sa clim romb tali bi yéegal say verre gis doomi aadama yi ñuy dox nga romb leen ñaaw na trop te pourtant ñoom ñu taxaw ci mbedd mi defuñu yàlla lu tax sans borom joxu leen ko waaye yow ni nga xam ne yaa war oto bu tooy romb ki ci mbedd mi tabax say kër tabax say étage denc say compte banque xaalis bu dul jeex defaloo yàlla lu tax mu jox la ko sunu borom mooy séddale te yemalewut naasi muxtalifuuna waaye kon yow lan moo la war nga xalaat ne yàlla mi la jox xañ ko benn yàlla boobu képp moo am ñaari yàlla amut su ko neexoon mu jox la xañ ko bu ko neexoon mu jox la mu jox ko xañ la yow waaye yàlla dafa ko dalaa jox kon amal yërmande ci jaam yi te gëstu ni ci sa ginnaaw dama rafet njortu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la yàlla dogal tey xëy na ñu am lii nga xam ne moo tax xale yi daw di génn réew mi di dem kenn ku ci nekk la yàlla jox. boo wàññi woon ci sa salaire dagg ca investir ci xoolal dëkk àll yi tey fi réew mi toll ñëpp waroon nañoo mën a am courant am ndox am lépp en tant que Sénégal tali yi waroon nañu tey tali boo jaar xam ne kat ah fii Sénégal la tolluwaay fi mu nekk waaye déedéet bopp sa bopp gi ñuy dund képp ku yàlla teg ci post la ngay njëkk a xalaat mooy jël say bokk teg ci sa wet àdduna doxewut noonu kenn ku nekk nañu xool la mu mérité ñu jox ko ko mu téye ko xale yi nga xam ne jàng nañu ba am ay diplôme téye ko ci seeni loxo ay master ñi am doon ay licencié ñii dem ba bind seen i nekk ci mbedd mi di taxawaalu amul njariñ dañuy génn bu ñu mënee dem Espagne jàngi wala France jàngi dañ koy def kon li leen di fayal ñuy jàng ban njariñ la amal amal ñun senegal jàng sa métier ba yor say diplôme te mënoo liggéey fii senegal boo ñëwee di wut liggéey li ñu lay njëkk a wax mooy ku boole ak man nga ne ko diw. mu jël say dossier te daldi si ñëwutal la liggéey boo demee Europe nag dañ la naan la yan diplôme nga yor nga ne diplôme temps diplôme ñu xool la nga mérito ak ca la nga fonctionnement ba nga xam ne moom nga doon ñu jël la fa dugal la fa ngay fayeeku weer wu de lii moo tax xale yi di génn réew mi nañu bàyyi ku la booleek man tey xool yan diplôme nga am bu ñu ko defee xale yi dañ toog danañ liggéey ubbi ay entreprise teg ko ci réew mi jël xale yi recruter leen dugal leen ci biir waaye boo nee man damay fay journée 4000 francs wala 3000 francs tey. yaa nga cey séentu loo xam ne 24 heures yoo xam ne yaa ngi liggéey loo nit ki wala 10 heures de di ko fonctionné te doomu aadama doomu aadama rek la mën a doon nañu ragal yàlla te xam ne koo mën a doon ci àdduna ci ay net li rek ngay mujj am na ponkal yi fi jaaroon lool bari xam-xam yàlla rus leen lool te terewul jël na leen buñ ci limee kenn rek ci réew mi kenn dootu ko laaj sëñ Sam Mbaye tey anamu sa borom jël na ko bu dee alal ngay jaay doo ko bëri le bopp le jili mbay wala Aliou Sow mu tey sa borom jël na ko kon yàlla dogalam bi kenn mën a teree mu wàcc yéen ñi nga xam ne nag yàlla dogal na ngeen yor alal nga xam ne xaalis ay zéro rek la mujjee kuñ ci daggoon jël na 5000 wala 10 000 francs wala 5000 francs wala 1000 francs dagg zéro bi jox la ko doo ko jël na nga naan baaxatul zéro zéro yooyu muy mujjee moo tax mu ne la du ma dara na rafet nañu leen jàppalante ñi nga xam ne seeni salaire augmenté nañ ci kaw nañu wàññi salaire yi investir ko ci réew mi xale yi toog toog liggéey. waaye kenn nit boole salaire wu dix personnes kenn nit gérer dix post fukki postes yoo xam ne sëñ Xaadim waroon na faa mën a liggéey Koura liggéey fa Libaas liggéey fa El Hadj Diagne liggéey fa nga boole postes yooyu yëpp jox ko kenn nit dajale salaire yu fukki nit yooyu yëpp jox ko kenn nit mu di ko fayeeku ñaare si nekk ay chômé di windeelu mbokk yi nañ leen ragal yàlla ci li ñu nekk te xam ne àdduna bi dafay jeex àdduna bi day jeex te lii xew ku gis yàlla ni mu doon rayee nit ñi. ci jamonoy coronavirus bi gis la xew Europe yàlla nopp ci ñoom ne leen yéen feebar bu leen deree laa leen di teg coronavirus bi ñëw dugg Afrique ñu jàpp ne ñu faagaagal mu ñëw daanaka nit ku ñuul sa borom muccal ko ci ba maanaam euh, ñu résister ci feebar bi ñu dem ba bëgg a fàtte loolu yàlla indi nag wàllu nit ñu ñuul ñi ndax ñooy daw di fekki tubaab yi di des ci biir ndox mi te ñun bañ moo na day ñoom tubaab yi ba ñu soxlaa bëgg dem ci ñoom dañ ñoo téye ñu soxlaa dañ ñoo yombalal yoonu ndox mi ngir lan ngir ñu des ci biir ndox mi nañu yeewu ban njariñam kon aaxiru zaman la Cheikh ba Fall waxoon Cheikh Ibra danoon bu ñu demee ba jamono bejjaaw gis naa ndaw yu bari des ci biir ndox mi ngir topp dërëm waaye bu boobaa doom nu ma daaw doxe ci dërëm ku ni doxe ci dërëm rek jàpp leen ne ca ñooña la bokk waaye nu ma doxe ci dërëm ku na ci dërëm da nga mucc te da nga jariñe te da nga am ngërëm Cheikh Ibra Fall lii la waxoon nañ bàyyi dërëm yi ñuy topp topp dërëm ba des ci ndox mi damaa bëgg a teral sama yaay ba toroxal sa yaay lii lu ko jar dara jaru ko fi te dund gi dafa gàtt kenn nag sa dund dafa gàtt guddul temps bu gàtt la jëlal say mbir rek wekk ci yàlla di sabablu yàlla bu noppee noppi na yéen xale jigéen yi nga xam ne yéen a jël seen bopp di exposé ci réseaux sociaux yi di wane seen cër yi ngir lan ba nga jar ku sa alxames jot nga dégg alxayri jarul ñaaw xanaa sóoraale woo leen seen doom yi nga xam ne ëllëg ak si biir seen vidéo yooyu war di daw seen doom di ko seetaan ñoon la sa yaay defoon lii wala sa yaay waxoon lii bàyyi leen xel loolu lu ko fi jar kenn ku nekk ba ngay judd indaale woo jëkkër góor ñi ba nga di judd indaale leen soxna kenn indaale wut xaalis kenn indaale wu fi dara. lu fi waay am fu nekk yàlla moo la fekk fa nga nekk mu jox la ko ci sag sabablu kon nañ leen bàyyi xel sunu borom te bañ koo fàtte te xam ne àdduna bu amul njariñ dinañ fekk sëñ Tuubaa yor ci lu bari waaye da koo am ba pare séddale ko jël ay jaamur def leen nu mu defut ay bokkam ndax léppoon ci moom ci jëmmam ji Cheikh Ibra Fall la ko jox mu ne mënoon na ko jox Cheikh Anta Gaawaan mbaa mu jox ko maam Cerno Birahim Daamal Daaru Moxdi mbaa mu jox ko sëñ Mandume Mbàkke mbaa mu jox ko sëñ Cheikh Balla Coro waaye déedéet Cheikh Ibra Fall la ko jox kii mooy gor waaye fii ci sunum réew yow boo faloo ba jekku taxaw à point la ngay njëkk def mooy say bokk ngay njëkk woo defal leen loo xam ne mënu ko ciy jàmbur te moo na tey amaana tey jàmbur ya am nañu loo xam ne tey jii mbokk ya amuñu ko woon jàmbur ya mën nañu loo xam tey jii mbokk ya mënuñu ko waaye doo xool loolu mën nga leen dimbalee ci geneen anam waaye nanga xool jàmbur ba la mu méritoo nga teg ko ca nañu wàññi. salaire yi nañu wàññi poste yi ñi occupé poste yu bari nañu ko séddale ñi ko war a am am ko ñu dagg salaire yi wàññi ko ñoo ñi ñu fay leen te kenn ku ci ne gis seen bopp xale yu toog ci biir dëkk bi nit day am foom fu mu toll day sës te bu sësee dootul gis dund ak dee la yemale danaan naa dem bii gañ bi perte lay teg loolu moo leen dal fi ne am na ci bari boo leen toogoon naa leen bu leen dugal ci gaale bu leen dem sax danga leen di tànqal da nga di jeûner parce que lu tax dund ak dee la ñu yemale parce que seen dund gi da ngay jàng ba sonn liggéeyoo bëgg di taxawal ci mbedd bi war a yeewu xëy gis sa yaay war a gis sa papa war koo jox mu lekk war koo jox mu naan amoo loo ko jox nan ngay def da nga naan man nit la koy tax a yéeg ci garab xaru mbaa mu tëdd ci kàllu mbala mu pendre boppam bu demee ba gis tey loo xamante ne nii dañ ko naan yoon baa ngi ne kat waaye boo demee boo eggee mën ngaa day dem day dem kon bu ngeen bëggee ñu toog wàññi leen poste yi. xaaj salaire yi jox xale yi ñu liggéey fukki poste ak ñaar kenn nit ngeen dindi ko fukki poste ak ñaar yooyu ngeen jël fukki nit ak ñaar kenn ku ne ngeen jox ko ca la mu moom salaire ngeen séddale ko xale yi toog réew mi neex mais ak lii xew nii doxul de jëmul kër de jëmul kër de te ñi war a wax nag nañ génn wax am ngeen lu ngeen wax da ngeen daan génn di wax ci temps coronavirus bi kenn ku nekk nan nañ def nii di sensibiliser di wax nangam sàngam léegi deewu ndox ni mu mettee ku ko ñam deewu ndox nga xam ne booy sangu doom ba ndox mi sërëx la rek ni ngay sonne ak li ngay daj tey nit sa mbokk tab bi ci géej di sërxat ndox mi di wéqu di sërxat ndox mi di ba sedd guy géej gi génne ko sànni ko ci biti mënatul boppam dara na mu réer wala jën yi lekk ko waaye mbokk yi li xam ne ku ne mettiwut ah dalaa dalut maa bu dal sa mbokk nañ leen toog gëm yàlla jàpp ci yàlla nañ leen bàyyi gaal yi ñu dem la taxoon ñu jóg mooy nappi ay jën indi ñu ñu lekk waaye doon pour jël ay ndaw ak i xale sànni ci population sans mën da nekk développement sans mën da nekk loolu mënut nekk kon tey suñu premier partie loolu lañ ko doon jagleel mooy li nga xam ne mooy actualité di jours newoon ci wàllu mbëkk mii nga xam ne mooy dugub gaal yi di dem Espagne dama naan buñ ñu nax ba ñu soxlaa ngir dem ci seen réew ñoom tubaab yi liggéey fa dañoo tëjaloon seen frontière dañu diiri diñ sànni ci ndox mi xañ ñu lépp tey jii coronavirus bi jeexal na leen soxla nañ ñu ñu ngi ñuy nax dañ jaarale ci ndox mi ngir mu yomb ci ñoom bu ñu bëggee loolu seen ambassade yi nañu may xale yi ay visa ñu dagg ay billet dem waaye dañ jaarale ci ndox mi ngir wër di wër lu yomb dañu des loo ci biir ndox mi pour lan nañ bañ loolu bañ leen ko nit ku ñuul dafa war a diñ dafa war a gëm boppam dafa war a xam ku mu doon dangay am valeur yow bul faible ci kanamu tubaab bi ngir lan ngir lu am xoolal bu ngeen wàccee ci ndox mi di daw ñu leen di dàq fii ak nangam lu ko fi jar ñi doon dund yàlla mi la yoroon ngay dund ba toll ni nga toll ba mën a dugg ci gaal yàlla moom ba tey mu ngi fi moo na boo ko bàyyeeg sa bopp rek mu yor la li war ci yow dina la ko defal bu kenn xeeb dara jaaykatu ndox bi bu mu xeeb jaay ndox jaaykatu nen bi bu mu xeeb nen jaaykatu caaf bu mu xeeb caaf kay liggéey virganisateur bu mu ko xeeb kay yor ay diplôme bu mu xeeb la muy def na ambulant ba keroog yàlla di ko may liggéey mu dem liggéeyi demande yi ngeen jël dugal leen ci biir trois yi génne leen leen ngeen signé ko jox xale yi ñu dem liggéeyi su ngeen bëggee jàmm ne ñooy ci réew mi moo gën wax ju bari jeeg coow leeg dara jaru ko ku génn wax nag nii dina la tontu parce que am na lu tontu yërëm leen yéen ñi ne ci kaw yërëm leen ñi nekk ci suuf yéen ñi ne ci kaw yërëm leen ñi nekk ci suuf te xam ne kaw ngeen nag yàlla leen fa teg ñu ne ci suuf yàlla moo leen fi teg naa si muxtalifoona yàlla daa binte yemalewut ngeen sóoraale ñooñ bàyyi leen leen xel lii ngeen defoon ci coronavirus bi distribuer ceeb ak déwlin ak nangam mënoon naa ñàkk dakk euh, yàlla nañ ci yàlla musal bu ñu ko arrêté wut dinañ dem ba population sans jeune lay nekk su ko defee nag chômage bi day gën a bari ci xale yu jigéen yi nga xam ne amaguñ borom kër waaye ñu am borom kër it dañuy mujjee ay enfants orphelins moo fi mujjee nekk rek mooy fils sans père te loolu moom musiba naaru la yàlla nañ ci yàlla musal kon ñoo ngi leen di waat bu baax di nuyu nag sama xarit yeeg am di jàmm yi maa ngi nuyu bu baax soxna Ndeye faatu gay nekk fële ca garage Daaru ca Touba. di sunu soppe di sunu wëllare di sunu lépp ndeysaan macha allah bëgg ñor ngir jëmi sëñ Tuubaa ji ñoo ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaara waaye ñoo ngi ziare bu baax ki nga xam ne soxna Zeynab Ñing nekk fële ca Touba Thiès joyeux anniversaire lañ lay wax le 5 incha allahu taala di suba ci alxames ji moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko taw feex tey sera sandatu daari ni waaye sëñ Xaadim Fay duñ la fàtte fee ca Touba Pikine borom mercerie ba ñoo ngi lay nuyu bu baax di la souhaiter joyeux anniversaire le 9 incha allah moom it mu woote foofa ñoo ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp mbokk yi xarit yi am di jàmm ñi sama xarit TikTok yi ñoo ngi leen di jaare bu baax bàyyiwuñ leen yéen ñëpp bu ñu limee rek daanaka dañuy bëgg a guddal waaye sama xel a ngi ci ñëpp a allah tabarakallah maa ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp di baalu ñëpp ak waaxiru daax waanaa an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi ngeen jëf